يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم xanaa kontaan ak bég rek ndax bésu diine la te mois de mars la te ku ne xam ne mois de mars wéru jigen ñi la ñuy sargal ay jigen defe nak ki mom moy daj depp gi muy ki ñu doon sargal tay di Seyda Cheikha Mariam Ibrahima Niass moom lañ doon sargal si tey waa amaat ñoo woon pour uh, di ko ndokkeel si tey di fàttali ko ci moom uh, xam nga fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin alxuraan daf na del fàttali fàttali day jariñ jullit bi mu génnee dañ ko daan def ci kanamam lu bari yoon mais bi mu génnee àddina nag covid bi moo tax moom mbégte lu mag bànneex bu mag ndax saafonte nañu ak ay doomam ak euh, ñi nga xam ne moo leen jur doomi ruuxam ak ñi nga xamante ne moo leen yar ak taalibe yi bég nañ lool tey daal te weeru jigéen la te waxtaane ci jikkoy jigéen ku mel ni Seyda Mariama xale yi man koo roy xam ne kii mooy ki mat a topp mooy ki mat a toppandoo mooy ki mat a roy moo tax daal ñu ñëwaat tey di ko feddali kóllëre googu ñuy sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di ñaanal kii ñu fi tax teew tey mu Cheikha Mariam yal na yàlla yokk leeram te yal ko yàlla fayal te yal na ñu yàlla dimbale ba lépp lu mu mébétoon te jotu ko def yàlla jàppale ñu ba ñu mën ko koo defal. Euh, yàlla jàppale ñu ba ñu jàppale ko ci njaboot gi ba mu kontaan ci ñun Cheikh nag li ñuy wax ci moom mooy rek euh, yaay la woon jàngalekat la woon. Euh, dimbalikatu jaamu yàlla yi la woon. moom dundam lu mu mës a am rek pour jaamu yàlla yi la te yéemu la joxe dara lu mu am yow nga soxla ko daf la koy jox toog mus sa am dara waaye tamit mus na ñàkk dara mu doon tam ku bàyyi woon xel euh, njaboot gi ñu ko dénk ah bëggoon na nag euh, am na yu bari yu mébétoon te am na yu bari yoo xam ne bu ko fekkoon jamono ji dina ci def loolu daal ñun mooy suñu itte. yàlla yombalal ñu lim mébétoon ñu defal ko ko ah ñim fi baye tam yàlla dimbale ñu ba lépp lu ko ci waroon ñun ñu mën ko taxawé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin